sorti de la salle euh, pour ne pas continuer à assister à cette mascarade. Euh, Aujourd'hui, le Sénégal a tout simplement euh, raté un train important, euh, une véritable émergence du peuple qui mettait en avant sa dignité, qui mettait en avant sa cohésion sociale, qui mettait en avant ses acquis démocratiques, leur consolidation, leur renforcement. Aujourd'hui, malheureusement, on a vu une violation flagrante du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. on a où ils vont lever l'immunité parlementaire d'un député en ne respectant pas les missions qui étaient assignées à une commission ad hoc euh, mise en place à cet effet. Aucune possibilité d'examiner les documents, aucune possibilité d'avoir même les documents, aucune possibilité d'auditionner des personnes citées dans les différents PV. aucune possibilité en fait d'aller dans le fond, pas pour juger de l'affaire, mais pour statuer si oui ou non on pouvait lever l'immunité parlementaire d'un député. Aujourd'hui, de toute évidence, il a été manifeste qu'il s'agissait d'un complot politique purement et simplement. En une heure ou deux, l'Assemblée nationale a exécuté, a livré un député. parce qu'on s'est réunis et le rapport le disait, jusqu'à 2h30, on était encore ensemble et au même moment, ils étaient en train de rédiger le courrier ou la convocation. Et le plus grave, c'est que la commission ad hoc, en délibérant, a tout simplement illégalement délibéré parce que le nombre de députés requis n'était pas mis en place. Les démissionnaires n'ont pas été remplacés conformément aux dispositions du règlement intérieur. Donc du début à la fin, lorsqu'on parlait de X, lorsqu'on parlait des conditions à remplir pour mener à bien notre mission, absolument rien n'a été respecté. De toute évidence, il y a une complicité entre l'exécutif le législatif et le judiciaire. Aujourd'hui, c'est une honte pour le Parlement du Sénégal et encore une fois, on, nous avons raté une belle occasion de rester debout, de, de, de, de redonner une fierté à ce Parlement. Malheureusement, la majorité s'est encore couchée, le Parlement s'est encore couché. Et combien de fois, depuis en moins de deux ans, trois ans, nous n'avons de cesse de voir en fait piétiner cette démocratie-là. Et vous avez vu au plan international le classement du Sénégal. D'une dictature hybride, d'une dictature imparfaite, aujourd'hui nous sommes en train d'évoluer vers une dictature hybride. C'est d'ailleurs le classement et très bientôt carrément occuper une, une position en fait de, de, de, de régime de dictature. par le canal du ministre de, de la Justice mhm. et à au président de l'Assemblée nationale. Mhm. Et nous avons confiance en notre justice. Mhm. Euh, nous, ce que nous devons faire, c'est lever l'immunité parlementaire pour que notre, euh, notre collègue Ousmane Sonko puisse dire la vérité. Est-ce que les procédures ont été respectées Oui, les procédures Au-delà de, des procédures, au-delà de tout ça, est-ce que la lecture des recommandations de la commission ad hoc vous a convaincu Oui, la lecture de, la commission ad Mais ce que j'aimerais tout simplement dire, mhm. c'est seulement que je Sénégal, il y a 16 millions de procureurs au Sénégal. Nous ne sommes pas en train de juger le député Ousmane Sonko, c'est notre collègue. Nous avons tout simplement levé l'immunité parlementaire de notre collègue pour qu'il puisse faire face à la justice et se défendre. Nous compatissons avec notre collègue. Parce que tout ce qui est aujourd'hui à notre collègue Ousmane Sonko peut nous arriver à nous-mêmes. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un député ne doit pas user de son immunité pour faire des choses. que ça soit le député de l'opposition, que ça député ou notre député de la mouvance présidentielle. Mais vous êtes dans un lieu bunkerisé. Il faut qu'on vous rappelle qu'on à l'Assemblée nationale pour le savoir. Vous avez même des à faire votre travail correctement parce que tout simplement, il y a des pas significatifs qui sont en train d'être faits dans le sens de la dictature. Et ces pas-là méritent d'être freinés tout de suite. Et c'est le lieu de faire un appel à tous les Sénégalais pour qu'ils se mobilisent pour arrêter ces pas significatifs que le président Macky Sall est en train de faire pour tuer notre démocratie. Cela veut dire cette mobilisation générale, prendre conscience de notre devoir, prendre conscience de nos responsabilités et arrêter ce projet funeste. C'est devenu un combat de démocratie. C'est un combat de sauvegarde de nos libertés, un combat de sauvegarde de notre démocratie, un combat également contre toute forme de dévolution monarchique du pouvoir ou contre toute forme de maintien au pouvoir ou de tentative de troisième. ñun ñëpp muy ñun ñi nekk ci parlement bi muy yéen ñi nekk ci presse bi muy mbokki Sénégal yi ñuy seetaan. ñëpp xam nañu ni liggéey bi ni mu war a jaare noonu rek la jaare ku nekk am na procédure yoo xam ni répété ko saq def nañu indil des fois tardement parce que ku nekk xam na ni bi ministre de la justice yónnee ci président de la de pour demander ko ñu lever malaanu suture bi assemblée bi protégé woon Ousmane Sonko muy immunité parlementaire li mu jëkk a def mooy wote bureau assemblée nationale bien sûr voté conférence des présidents demandé commission des lois ñu tànn comité ad hoc bi nga xamante ni ñooy représenté assemblée bi pour diglu Ousmane Sonko commission de loi woote ñu tànn salon ni ñu koy tànnee ci biir assemblée bi ñu dem plénière valider ko ñoom ñi nga xamante ni tey ñoo ni duñu ko voté et pourtant bi ñu laajee ci biir commission bi yónnee nañu ñu leen fa représenté mais ñoom li leen jaaxal mooy x bi ñu ko yónnee xam nga ay waxu x bu ko fi kenn wax di lëbëje xali nit ñi parce que noo non non bul yàq samay wax danga nga maa laaj ma di la wax man magum jëm laa damaa génn fee ñëw ba fii pour wax ñun duñu ñu mbalaanum kenn ci x du ñu wax waxi x li ñu liir leer na su dee déggu leen tubaab ngeen jàngi arabe walla ngeen jàngi anglais waaye li ñu wax leer na mooy Ousmane Sonko. Mm. moo nekk ci lettre bi ministre de la justice garde des sceaux yónnee loolu la la la présidente commission loi loolu moo nekk ci document yi nga xam te ne moom la ñu jox assemblée nationale léegi su fekkee ni validé nañu ko comité bi ñu woote réunion altine ñu ñëw wuy si ñu réunion ba pare tënk ni lii ñu fiy wax bu mu génn salle bi ñoom ñu d'accord ci si ñu toog ci biir salle bi ñu gis leen ñuy def en direct ak ITV maa ko gis wal faj euh, Facebook kon ñoom lii am solo tey mooy usmaan Sonko ci boppam mooy ki waroon a sax nag démb bi mu dajee ak nit ñi liñ ko doon xaar mooy naa noppal askan wi te démissionné ndax comme dafa bëgg yor réew mi dafa war a respecter institution yi assemblée baaxul ñii àtte baaxuñu Macky Sall baaxul député yi duñu dara gendarmerie amuñu droit def lii police a ngi torturé ci ku expiré ni da nga bëgg a jiite am réew defe naa ni doo defee noonu xaalu xaarewuñu ko foofu xam nga fu ñu koy xaar mooy moom na dem ni senegale yu bari ñàkk a gëme ni moom defu ko na dem woon sénégalais yi ni defuma ko foofu lañ koy xaar na setali boppam setal parlement bi jël si jël ndoom ak tànkam liggéey foofu la ñuy xaar Ousmane Sonko xaaruñu ko feneen beneen bi ci des moy ñun mënuñu weddi suñu bopp ba ñu nekkee ci assemblée bi di liggéey ak léegi ak la ko jiitu ndax 2005 keroog ba nu jëkkee introduire loi parité man ca bokk di xeex cause de la femme ba am loi bu criminaliser viol def na ak deful kooku yoon a koy leeral na dem leeral boppam ki nga xamante ni tey moo convoqué wala moo porte plainte du ab guinéen du malien ab sénégalais la ki mu porte plainte ab sénégalais la mani ni Ousmane Sonko dafa mën a ëpp maqaama Bill Clinton affaire jigéen laa lay wax de DSK mu bërki démb mii nag boo tooñee saw askan da ngay humble am modeste bu tol ni dem setal sa bopp malla nga ni jéggal ma waaye dafa war a leer que ni du affaire état ak Ousmane Sonko affaire u Adja la ak Ousmane Sonko na dem lijjanti ju ko bu setalee boppam dina honoré boppam honoré njabootam honoré réew mi xale yii ko topp dana leen honoré dana del si liggéey ci asamble bi su fekkee setaliwul boppam nag loola man xawma ca dara ndax man li ma war mooy liggéeyu député laay def foofu laay yem du ma dugg ci jugement de valeur